président bilan président euh, Macky Sall wan len ko mu nek lu ni fàng ñëpp di gis ci domaine bo jël secteur bo jël mu def ci lo xamni président yi ko fi jitu yep ken mësu ko def ñu waaw stratégie de communication bo xamni dafa génne lolu bu baaxa baax woné ko feeñal ko ensuite ñu won len li nga aussi euh, naal na pour bu amé ndam deuxième mandat li nga xamni naal na euh, aussi nek lo xamni Euh, lu am solo la waaw loolu daal moom la ñu teg comme stratégie doxal proximité dem ci population yi dugg ci kër yi euh, loolu daal yaakaar naa ci gàttal loolu moo tax euh, président am ndam ñun nag suñu leader xam nga bien avant loolu aussi ça ça fait déjà des années mi ngi doon def ay calebasse de solidarité pour les femmes di def ay ay formation waaw yooyu yëpp daal defe naa moom la ñu capitaliser Eh, ba tax ñu am ndam li nga xam ni yàlla may nañu ko waaw eh, ak itam nag président Macky dafa nekk candidat boo xam bu neex ha jaay la eh. waaw parce que tamit dafa am coefficient personnel ak itam am yéene bu rëy ci réew mi yooyu daal la ñu capitaliser ko dem ci ak ngëm-ngëm moom ñu may victoire bi nga xam am nañ ko.